bala ngay teewlu vidéo bi mbind xonk mi ñu bind abonné cliquer ko nga abonné ànd ak ñun ci mboolem programme bu ñuy dugal ci kër gi njariñ kase nga fi jëlee. asalaamaaleykum waaw sëriñ Babacar Mbengue ñu ngi lay ziar bu baax di la jox sa wàccuwaay. waaw en tant que jeune waaye en tant que acteur de développement nekk fii ci Thiès Medina Fall mu mel ni temps yi dafa am ray yu bari yoo xamante ni bari na ci réew mi ñu koy def xale yu jigéen yi waaye di doon ay jigéen yoo xamante ni dañuy nekk en état doon ay xale yu ndaw loolu lañ bëggoon daal nga indil ñu ci ay leeral ak nit ñi lan mooy seeni mbir ci lu demee noonu macha allah. waaw information yi nekk si site bi yu bëri dañ koy suivre muy actualité quoi avant dara tout d'abord ñun dañuy masawu rek famille bi nga xamante ni yàlla dogal nañ li ci jógee léegi muy soxna Marème cas bi amoon Médina Fall yàggul dara am ñu amaat beneen cas muy Médina Fall ah loolu li nga wax rek mooy ñun moom li ci wax moo dañu mujj jaaxle ci réew yi sax la ñuy wax ndax xamuñu ban ban réew lañ nekk en plus chaque jour ñu dégg ak violence boo xamante ni euh, ci ci jigéen ñi ñu leen di rey ci anam yoo xamante ni dëppoowut ak yoon ñu nag dañuy dañuy dañuy dañuy sensibiliser nit ñi rek leen wax ni kenn ku ne yaa war a mën a jël sa sécurité bopp fa ngay dem nga xam ko surtout yi nga xamante ni ñoom ñoo yilif nit ñi ñoo ñoo yilif ndax ëllëg suñu borom dina laajte nan nga sàmmee sa njaboot loolu rek lu am solo la tañ moytu bu baax a baax a baax am vigilant ci njaboot bi man a maa ngi koy nitulu en tant que acteur de développement Mbène Fall suñu soño luñ dégg kaay yi ndax fan yàggu dara presse bépp ñu ngi naan Médina Fall Médina Fall te yàggul dara matu sax benn semaine nga dëggaat ci beneen cas boo xamante ni dañu mujj sax a wax am na léegi Thiès mais nag ñoo ngi sensibiliser jeunes yi nga xamante ñoom surtout sécurité bi parce police yi nga xam ne ñoo ngi fi dañ gën a veille ci sécurité nit ñi loolu laam ci lu may wax waxtaan deme lu baax a baax a baax euh, sa site internet nga xamante ni bëri ñu ñu di ko suivre njëriñ la di la encouragé bu baax a baax a